sëñ Saliou yaay Fallou Jésus eh, maa ngi leen di nuyu ñëpp am ah, di am lu ma bëggoon wax lu ndaw rek te ci bi sax maanaam lépp lu ci jub rek ñu xam ne suñu la lépp lu ci jubul rek ma daal ci jéggalu te xam ne nit matut am lu ma métti nag en mel ni safuma bu ma génnul mel ni safuma li muy bëri bëri yëpp ba muy am maa ci yoonu màggal bi maa ngi yoon Touba di ñibbisi kon ñun lépp lañu boole. ñu def ñëpp benn nag daal di bëgg ñëpp ñëpp bëgguñu ndax Sénégal lu muy yaatu yaatu yaatu yaatu yaatu dialogue islam moo chrétien ñi ci doxatul bariwut chrétien musulman kenn mënatul leen xàmme ba ci man mii kenn mënuñu xàmme kii mooy catholique bi kii mooy musulman bi ndax xam na ni benn yàllaa am waaye yow mii di wootee oustaz nga toog ci télé bi nga xam ne àddinaa koy seetaan Sénégal koy seetaan nga nekk influenceur daal di toog ci télé bi am sañ-sañu jàkkaarloo dinaan Pape Cheikh Diallo bu deewee waroo koo jaale waroo koo sax ñaanal waaye Pape Cheikh tontu na la sax amaana te xamoo ko nee na la chrétien giy dund ngay lekk-lekkam di naan naanam mu nekk sa géer di la teral di la may xaalis waa kooku dee yow mii di wooye sa bopp soi-disant oustaz yéen woo ko sax ñaan kon qui es-tu qui es-tu au mu bantuwaat la wax la ko ne la chrétien bi nga xam ne yaa ngi lekk-lekkam di naan naanam xaalisam di jóge ci moom di ñëw ci yow kooku bu dee oustaz nga ne doo ko ñaan nga ne doo ko jaale nga ne ko waaw parce que yàlla nee na ku gëmul yàlla seen xaritoo wala seen jàppante ci àddina bi la yem mais bu deewee sekkatoo leen ko pourquoi attendre ce moment dur pourquoi attendre ce moment de tristesse di génn wax wax yi nga xam ne àddina ñëpp koy seetaan di génn wax wax yi nga xamante ne am na famille yoo xam ne moitié catholique moitié musulman comme man personnellement sama famille. jullit yaa ngi fi di sëy catholique yi di former ak ñoom njaboot yaa may dégg bu baax. am na kër yoo xam ne boo fa duggee doo xam ne kii mooy catholique wala kii mooy musulman maa ngi jégal bu dee wax bi daa xaw a diis mais lu jugee ci xol nag wax dëgg yàlla feeñ ci kanam te ci xol lay jëm man Serigne Saliou laay waatee Serigne Saliou laay waate te wutee nga ko buzz ndax balaa di kenn di ma xam bu dee ñaari nit a ma xam ci àddina bu dee ñaari nit a ma xam senegal sax balaa ñaari nit yooyu di ma xam képp ko ma xam xam na ne Barbichou njaago Serigne Saliou lay wuyoo yaay faalu Jésus oustaz tey jii kon man en tant que man bu ma sama mbokk artiste duñ ma jaale ah duñ ma ñaanal parce que gëmuñu yàlla yow ñun gëmuñu yàlla ñun et puis dañuy yaakaar monde bi ñaar religion rek a am am na religion amaana ñun suñu bopp lañu xam musulman lañu xam ak chrétien musulman mooy yéen chrétien ñu ñun ñu boole suñu doon ñi nga xam ñu ci ay religion pourtant yoon wax ci ñun

mais dama ne pour pourquoi ngeen xaar ba ci moment de tristesse bii pourquoi ngeen xaar ba kii nga xam ne génn àddina kenn sulagu ko ku ne di wax ku ne di wax tey jii musulman bi nga xam ne moom la gënoon jege mu am yëg-yëg dem ñaanal ko amaana yàq ngeen xelam lan la nit dee nañu ñaanal ko waaye Sénégal nag léegi dañoo ñemee ñu dee Sénégal laa gis léegi ñuy romb gis ku ñuy rey ñu romb la bu njëkk ba ma nit bu yàgg waaye xamal naa sama bopp bu njëkk ba da ngay dugg ci koñ ñu ne la koñ bi am na ko fa gaañu une semaine doo romb ci koñ et pourtant doo gis moor bi mais une semaine doo sa romb ndax ragal yàlla day la rafetal kàddu yi day la rafetal wax yi bàyyi leen di vexé nit heure bi daaw dafa am fi génn ci yéen ci ustaas yi di ne booy lekk lekkandoo ak chrétien boo jàppoo nuyu chrétien fu chrétien romb nga romb fa loo ñaan yàlla du la ko nangul yow ak formation yéen a yem parce que ñun ak chrétien ñun lan lañ ñun lan lañ ko fi na ñun au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit moom la ñuy wax buñ lay nuyu ne la paix et joie jàmm ak mbégte jàmm ak mbégte chrétien di ko ñaan jàmm ak mbégte musulman di ko ñaan jàmm ak mbégte keneen ak keneen di ko ñaan au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit ñu daal di koy dundee nag mu nekk suñu xol bi xam lan la ñu war a ñaanal ki gaañu nii ban sujet la ñu waroon aborder génne ko que la terre lui

boo demalul ca ba muy am nakar ay waay ba muy am bànneex est na que war nga faa dem mariage yu chrétien yi ngeen di dugg yéen laay waxal ba tey yéen ñi génn di wax waxuma ak ñi waa TikTok waxuma ak waa Sénégal yi waxuma ñi génn di wax tey ji chrétien gi wootoon mariage ngeen dem foto toog li ngeen fay yéen a ko xam waaw parce que sas ngeen woote mais ay jeunes ngeen da ngeen di dund comme les jeunes normal télé rek moo leen différencier ak yeneen jeunes yi mais les jeunes yi di dund moom ngeen di dund bàyyi leen wax bu ñaaw baaxut bu vexez des gens yoo xam ne seen rongoñ bu ñu sottee ko ndax ci seen baat rek du baax yàlla xam ku baax ak ku bon gis nga boo xësee ba dee ba ñu suul la yàlla mooy wax direction bii nga jëm ak àjjana ak safara yàllaa ko moom moo xam kam fay dugal gis nga toog nag muuru sellal sa cër te sa gémmiñ bi du wax lu baax doxewoo ko jëloo joxe jëfewoo ko sa bët bii du wax lu baax doxewoo ko jëfoo sa tank bi du dox fu bax joxe woko jefe woko sa loxo yi en même temps taxul nga dugg aljam taxul nga don julit nak julit la julit na yom do to jul moy képp ku gem yalla mais bo ne julit nga nga am sañ-sañu taxaw fi ne chrétien gëmuñu yalla ñun ñoo wax gëmuñu yàlla yow yalla indi ñu ci aduna bi ñuy top yalla di jaamu yalla ba ni ñu toll ni nga am sañ-sañu yow oustaz taxaw ne ñun gëmuñu yalla

donner des bons exemples du moins xale yi dañ leen seetaan mag ñi di leen seetaan boo leen gisee lu bon sax amaana ngeen rafetal ko loolu yéen la mais génn naan gëmuñu yàlla loolu yéen a ko koy wax mais yàlla waxu leen te li ma jaaxal yàlla nee na yàlla nee na ngay dégg waaye yàlla nee na ma doo ko dégg bàyyi leen li ngeen di def kon yéen waroo leen juger yàlla moo wax yàlla moo wax nañ bàyyi yàlla juger ñu vous êtes trop petit pour nous juger da ngeen a tuuti pour juger nit mënul juger moromam te juger sa morom taxul bo deewee ken bañ la juger aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés nañ bëggante ñun ñëpp ben lañ chrétien ak musulman ñëpp ben lañ te dara duñ féewale man yaago seigne Saliou jusqu'à la mort mais nag sama diine catholique bi eh, doy doyna ma ba ko ci kobos ma yëg ko ñun ñëpp ben lañ man maa ngi ne artiste la te ñi may feccal ñëpp ay musulman lañ et pourtant ñii papa laa leen ñii yaay ñi may woowee doom ñu nekk benn bàyyi leen xeebaate yàlla borom bët bu rëy bii ma ni la muuru wala toog ci télé bi di waaraate taxul nga ne la am nga bunt ci àjjana ba booy jaar déedéet toog yàq ñàq ñi yiwal du sol lu la neex taxul ñu ne la sa buntu safara la ne déedéet nit mel na fi melekaan boo xamante ne maara day taali waaye xool ba la muy def ci lu baax la muy wax ci lu baax la muy joxe di ko dimbalee néew ju doole gi loolu lekk mën na ko dugal àjjana barki sëriñ Saali yéen ñu toog nag muuru ñëw teg seen laxaraas saay seen yére yu rëy toog di yàq ay doomu aadama di yàq ay nit di leen vexé di tàngal ay xolu nit maanaam ko gëmul yàlla diw bu deewee ñu koo dem jaare ji parce que gëmul yàlla yow yaa xam ki gëm yàlla yow léegi bu la tolloo noonu bu lekk lekk chrétien bu naan naan chrétien te xam nga lan laa bëgg dafa war a doy Léopold Sédar Senghor ma ne la jiite na toute nation te ba mu dee woon kilifa diina yaa ko njëkk boobu ba tey kenn alkool kenn yàquwul wasalaam maa ngi jéggalu kàddu yi sama xol a fees parce que pour man lii warul jóge ci ñi nga xamante ne nee naa man ñooy samay mbokk ñi nga xamante ne man ay musulman la ñoom